ko xam Serigne Lamine Bara Fall xam ko xamé ko ragné ko ci bag yi ngeen di faral di gis écran bi comme ni jaaro li ci gëna am solo moy daf lay ar pour chat dalay ar pour lamine dalay ar pour rap dalay ar pour jinne ak seytaane ak nitu guddi ak lepp luy feebar lool rek tax nit war na ko am karange ndax yoyu moy yakal nit lolou moy tax nit ñi mënuñoo yor dara ñaareel mbir bi day ubbi say buntu wërsëg ndax nit wërsëg ay buntu la nee nañu buntu wërsëg yi juróom-ñaar la am nañu nag ñu naan fukk buntu wërsëg la am na ñu naan am na lu ko ëpp waaye ñu jàpp exemple nit ku nekk ci ñun bu sa juróom-ñaari buntu wërsëg ubbeekoo di nga dund ci kaw suuf ba jóge fi te dootoo soxlaal kenn dara dootoo bokk mukk ci nit ku naan jërëjëf dañ la naan jërëjëf xaalis day ñëw bu baax nga am avancement ci sa liggéey te xaalis boobu su ñëwee day toog ndax nit ñu bëree membrane dañ am jafe-jafe wërsëg bi day ñëw mais du toog bismillah alaji wara deg na say mbir bu baakha baakha baax li ngay def leer na li ngay wax leer na ñun mom ñun bi mouride yi moom yaakaaruñu kenn ku dul seigne touba ak cheikh ibrahim mom mom la lay bayel mom mi nga xamne mom mom lepp man nak ci sama jëm bop ku sa mbir leer na te bi nga feñale ku sa ngëm-ngëm ci yalla ak ci yonante bi te ki wax jital ku suñu borom ah, ah, ak yonante bi kooku am defe naa ragal na suñu borom ragal boo xam ne nii lu muy def yëpp mu ngi ci xool ku suñu borom ak yonent bi ndaxte ku dee yaa ko sa bàmmeel la te xool nga sa diggante ko sa bàmmeel ak sa njaboot bi nga xam ne moom ngay bàyyi ginnaaw man it koy koy yàlla laa lay bàyyil ak sëñ Tuuba ak Cheikh Ibra ndaxte ñun moom la ñu yaakaar fii te moom la ñu yaakaar fële kon nag li ngay wax leer na ci ci barke borom Tuuba rawatina nak ci walu bayre da ngay am bayre ya xam ci bép activité commerciale boy def wala ngay yëngutu ci walu développement wala ngay yëngutu ci politique wala ngay yëngutu ci lu munti doon te jaaru itim comme ni ngeen ko gisee dafa bax ci kuy tukki nit duko tak demander visa ñu rejeté ko foo bëgg dem ci adina mamran, dal moy mamran li nga xamanteni moy mooy njariñam salaamaaleykum sëñ Bara Fall ma ngi ziar ah man de awma sa fay wax deug yalla parce que bima ñëwé jóge Belgique tukki woon naa def trois ans ñu delloo ma aw ma kayit yàlla def ñu boole ma yow ma ñëw seet la arrêt du balees ma ne la ah man de jaaro bi may dégg laa bëgg bi ma joxee jaaro bi ma dem ñaan visa dëkk bi bi ma ñaan visa nag dëkk bu mag la dëkk bu jafe visa sax laa ñaan muy Angleterre bi ma ñaanee ñu jox ma visa trois six mois maag sama doom ma ñëw fii Angleterre dugalaat kayit bi ma dugalaatee ñu jox ma 5 ans direct at passeport aw ma nag sa fay ma ngi lay yokk di la ñaanal yàlla na yàlla fay yàlla na la Serigne Touba fay ak sëñ Baara la kontaan naa ci yow torop torop torop parce que li ma la waxoon yëpp defal nga ma ko wax dëgg yàlla. nit nag bala mu naan day mën a dimbale kenn xool leen ko moom jëmmam ba pare te képp ku ko am dootoo am soxla buy fanaan di nga am sutura te di nga am sakk rawatina nag ci wàllu wér-gu-yaram yi daf ciy dox ndax buñ la koy jox fay ànd ak secret bi nga xamanteni ni naa ko leeral ndax day dox ci walu wir geram kep ku wéradi tak ko rek moy ci kàttun yalla yalla dina dimbale ci sa febar febar bobu nu mu munti tollu ci tak gi rek waye dana am lu mu andal pour sa walu wir geram spécialement adna bi ñu toll ni nak ñepp soxla ñaan te ñëpp a soxla galat lolu mom nañ ko wax rek te dee suuf bu sutanteera dañ ko jall bi bi bo gis for am lu muy diwo kon nit ku nek war nga mëna am ay ñaan yoy def sa euh nan ngay mëna def nak ba jotti ndax bari na ñu nek Europe gi te soxla ko Amérique ndax lii moom fépp lay dem ci àddina ku nekk dakaar nekk Matam nekk Fouta wala nekk Kolda wala fu ti doon it danañ xefe ba noo si jotee ndax am nañ ay livreur am nañ ay cak-cak am nañ ay correspondant yi xamante ni ñoom ñoo ñu jëlal suñuy colis di ko yóbbu dans les régions képp ku ma soxla bëgg bëgg sama jëmm am na itam ticket de consultation soo bëggee consulter pour xool sa yaram wala nga bëgg def consultation à distance pour def li si xaar mën naa ne wala nga ñëwal sa bopp dagg sa ticket gi gisal ma sa bopp bu fekkee da ngay jënd sa jaaro nga jënd sa jaaro bu dee da nga bëgg ay ñaan wala nga bëgg yeneen wala loo ci yokk wala loo ci dolit loolu yëpp ay sàmm lañu te duñu seexlu jur seexluwuñu kenn képp ku ñëw danañ la dalal danañ la respecté te respecté la confidentialité la may njekk ak teraanga ak sutura ci li ngay wax dina yem ci suñu diggante allahuma salli ala sayyidina muhammadi wa sallim jërë ngeen jëf merci beaucoup on vous remercie vraiment euh, de ce que vous faites et de ce que vous dites Vraiment, c'est vrai qu'il est rare que les, que les de nos jours puissent faire ce genre de choses. Je vous remercie énormément. Maintenant, en ce qui concerne la bague, en fait, je voulais faire cette bague-là parce que le, délai était déjà court. Hein. parce que quand le délai est court comme ça, ça nous permet de, de gagner énormément. Je ne sais pas comment vous dire encore plus merci. Je ne sais pas comment Marie mari peut vous dire encore merci pour cela. Que Dieu puisse vous remettre au centuple ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ferez. Que Dieu puisse vous remettre au centuple, que Allah puisse vous remettre au centuple ce que vous faites et que toutes vos affaires puissent encore plus, encore mieux même, encore marcher. Car c'est vrai que quand on fait les choses avec le cœur, Dieu nous le rend toujours au centuple. ba def diagnostic bi dañu mën xam ni ku góor ki la wala ku jigéen ki la bu fekkee jigéen bi ñoo ko yeewoo pour faj ko hmm. ñu bu fekkee itam ku góor ki dafa tëw am doom mën nañ ko defal bilan spermogramme hmm. suñ Bara Fall maa ngi lay ziar ah man de aw ma sa fay wax dëgg yàlla parce que bi ma ñëwee jóge Belgique sëy naa ñaari yoon aw ma doom presque dix ans de mariage aw ma doom bu ñu gisantee nii daal laa jëlam ba wax dëgg yàlla ci garab yi moom ma ci jox nii ma naan ko yi ma naan sangu di naan pour mooy wax mbokk yi affaire bi mën na ñii mën na gaaw la tey mu ñii mën nañ gis te daan deux wala un mois mais de toute façon de gis dinañ gis résultat aw man sa fay maa ngi lay yokk di la ñaanal yàlla na yàlla fay yàlla na Serigne Touba fay ak sëñ Baara daa kontaan naa ci yow trop trop trop parce que li ma la waxoon yëpp defal nga ma ko wax dëgg yàlla tey nag ginnaaw dañ fi ñëw ci suñu liggéey ñëpp xam ñu ci médecine traditionnelle muy médecine africaine comme ni nga ko expliqué sànq. kon ñun Afrique itam dañu am mm-hmm. mm-hmm. ni ko mën a génne limite dina mm-hmm. comme ni ko docteur Diouf ci thème bi tey bi. muy surtout problème infertilité de couples mhm. muy couple yi nga xamante ni bëri na ay jafe-jafe yi ñu am ci wàllu am doom mhm. eh, du ñu wax sax ménopause wala du ñu wax sax eh, stérilité mhm. mais dañuy wax infertilité de couples ci ku góor ki ci ku jigéen ki ci doom xale bi ndey gi ak accouchement yi ak euh, perte accouchement yi muy avortement yooyu yi ci nekk yëpp yaakaar naa ne bu ñu ci tënkee rek dinañ ci mën a waxtaan ci kàttan suñu borom jot nañ fi garab yoo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu ko a baax waaw sama soxna ñëwoon na ci yow sax ah ñëwoon na ci yow pour affaire fibiron bi te mu dëkk Thiès. garab boo xam ni daaw ñaari yoon ba garab bi alhamdulilah yàlla def na boo yàlla def na ba yàlla def na ci am naa si sàq ndeer am naa si sàq ndeer léegi. vraiment ci moom ku tëb xamul man xam naa ko yàlla may na ko ay xewul yu bëri te garab bépp mu la jox garab mu la jox rek. boo ko jëfandikoo rek du résultat. lépp lu ñu nekk ci moom dañ koy seet.

ba def diagnostic bi dañu mën xamni ku góor ki la wala ku jigen ki la bu fekke jigen bi ñoko ko pour faj ko ñu jël suñu wal bu fekke ku góor ki tan docteur bee ko war jël muy urologue bi mo ngi mu def ci waram couple bobu en général buñ ko traité même pas ay weer yu gàtt suñu borom dana ci def barke parce que problème do gis amna solution dafay làqu rek mais bu fekke nit ki kooku mo ëpp chance wér que ki nga xamante ni exemple dafay dem ci benn pàcc bi kese. li bu koy njëkk demandé mooy est-ce que am na benn échographie boobu dana mën a détecter lépp luy infection bu nekk ci jigéen bi mhm. te dina mën a tax ndax ku jigéen ki amul kyste de l'ovaire mhm. ndax amul trompe yu mhm. wala amul fibrome wala amul genre feebar yu ni mel bu fekkee dafa am genre feebar yooyu ñu xam ni kii sage-femme bi ko ñu jox ko ko bu fekkee itam fibrome bi moom opéré woon na ko te dafa dellusiwaat en général fibrome yu bëri ci ñi ko am

mais bu fekkee itam ku góor ci dafa tëw am doom ñu xool ni kii def nañ ko bilan spermogramme ñu gis dafa am azoospermie wala oligospermie wala boog sperme bi ndoxu qualité bi ci nekk dafa baaxul wala book amul mobilité wala ju mel noonu même chose dañ la yóbbu ci urologue bi mu xool bu fekkee dafa war a jox garab wala bu fekkee moom dafa am varicocèle pour mu defal ko intervention éthique dañ ciy jàpp ñu bàyyi ko urologue bi mu liggéey liggéeyam ñurit ñu xool lan lañ ci yàlla rek ñu def ko ndax am nañu ay complémentaire d' aliment yi nga xamante ni pour góor gi nga xamante ni mu ngi séy ak soxnaam mënul am doom ñu jox ko ay garab da loolu yàlla def ci barke am na ci benn couple bu mu ci mujj am sax ndaw si mi ngi nekk France Marseille mais yàlla dafa defoon ci jamono jooju mu séy mu séy euh, ñu xool ko foofu ñu ni ko sa benn ovaire nga manqué le par miracle nga mën a am doom tubaab yi ni ko essayé dellu sa dëkk nga xool est-ce que ñoom amuñu ñu ci mën mais yàlla ba mu ñu booleeg ñoom ñu ànd ci ak suñuy partenaires yi di docteurs yi mhm. yàlla may leen loolu ñu àndandoo lëkkaloo wax dëgg yàlla suñu borom may nañu mhm. fii ci Sénégal mhm. kon nag wax dëgg yàlla daal am nañ ci am nañ ci daal ay résultat yu am solo man dama fi amoon feebar boo xam ne daf ma sonaloon boo jàpp sama docteur bu ne dem naa fa ñu def ay analyse ñu ne ma gis ñu dara waaye yàlla dimbali ma may suivre toujours télévision yi borom xam-xam yi yàlla xam na ne nag borom xam-xam yu bari dem naa ci ñoom dem ci tubaab yi ba sonn ñu bindal ma ay garab ba sonn def analyse bu nekk gis ñu dara dem nit ci borom xam-xam yu bari waaye bi ma yàlla boole la Lamine Bara mii ba ma dem fa wax dëgg yàlla mu commencé ma ay traitement vraiment ci diir bu gàtt rek laa tàggoog lool wax dëgg yàlla yàlla ak sëriñ Baara mii moo tax ma tàggook loolu wax dëgg yàlla du loo xam ne traitement jël temps la ci man dama daan dem ñu may joxe reen ak i garab may naan ba sonn dara waaye wax dëgg yàlla ci kàttanu yàlla daal moom mii moo ma faj waa fajal ma yeneen sax wax dëgg yàlla loo xam ne waxuma ko woon ndax nit ku nekk boo amee jàngoro la la gën a sonal rek ngay gis tey ji nag ñu nar a waxtaanee mauvaise haleine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 traitement général la ni ngeen déggee ma waxee ko ba lépp li nga xamante ni mooy lu nit ki di dund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 ci territoire national dañ la ci mëna jox ba nga mëna jot ci say traitement inshallah allah ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal seen cabinet univers bio dañu délu ci waat ci yeneen feebar inshallah rabbi merci allo alaykum waaw serigne lamin baara fall waaw man la ibra man la ibra lay dekk kamburen 1 waaw traitement mauvaise alam bi kontaan na ci de kontaan na ci bu baaxa baaxa baax parce que sonon sonon na trop trop trop sama bi du doon jooy mënatumaa dem ci xewi yi dem ci ngenté yi man wax dëgg yàlla daal sëñ bi kontaan naa bu baax a baax moo Maurice Allen bi sonal na ma trop trop trop trop sama biir bi da doon jooy ak lépp léegi lépp macha allah sëñ bi maa ngi lay sant nag bu baax a baax di la gërëm di ñaan yàlla mu yàggal taxawaay bu baax a baax a baax Maurice Allen bi daal sëñ bi solo na solo na ma lool lool lool lool waa ji mënatu maa na dem fenn fen fenn kër gi sax mënuma ko woon a génn wax dëgg yàlla mais instant daal sant baax a baax sama biir bi da daan jooy tam sama bii bi da daan jooy sëñ bi mënuma mënuma na dem feen wax dëgg sant naa bu baax de jërëjëf mënuma wax sax. mauvaise haleine kon ci loolu la ñu nar a am yéene pour waxtaan yéen ndax pour ñenn ñi dañuy am yenn jafe-jafe ci seen biir maanaam dañuy am ulcère wala estomac wala ay reflux gastrique maanaam dañuy sentir ay xeetu gémmiñ bu ñu wax ak ay nit ñi ñu dëmmooyu di wane ginnaaw di tëfli wala ñuy sentir ñenn ñi dañuy déranger wu dañuy déranger ay nit ba ñu ci bari ci ñoom dañuy sax takk masque ndax bañ a déranger ay nit surtout weeru koor gi. loolu nag wax dëgg yàlla nekk na lu sonal askan bi ñu bëree ci askan bi dañ koy sentir di ko jàmbat. dañ fay def traitement bi nga xam ne dafay jëm ci wàllu mauvaise haleine généralement. koy raxas si biir bi raxas ko bu baax ba mu set fépp ci seen yaram ci wàllu ulcère. wàllu estomac may la ay garab yi ko faj ci put bi ndax am na ñoo xam te dañu am amygdale wala angine loolu itim ba tey day bokkaale ci gamme de traitement bi ñu lay jox day fajaale amygdale faj angine ak fu mauvaise haleine bi mën a jóge am na ñoo xam te ni nag seen bi dafa am problème wala ñu am problème bu bucco-dentaire wala seen signe yi wala bëñ yi day am ay gàllankoor gamme bii ñu leen di jox am na lu ñuy broso am na lu ñuy naan am na itim ay ñaan yi nga xamante ni dafa jëm ba ci wàllu ngelaw seytaane ñenn ñi ci seen signe la nekk ci signe bi bu ñu brosoo nee naa leen ndox mu xonq lay génne lu mel ne deret wala ndox mu jaune bi xam te ne day dem ba di am xet loolu yëpp dañ leen koy fajaaleel généralement ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmande bi nga xam ni moom macha allah gamme complet la buy faj lépp lu jëm ci wàllu euh, mauvaise haleine comme ni ma ko junjee sànq ci wàllu ngelaw ak ngelawu seytaane loolu affaire rab la mën nañ leen ci mayaale ay ñaan dañ leen di jox ay garab may leen ay ñaan yi nga xamante ni lépp lu jëm ci wàllu rab ak ngelaw seytaane dañ leen koy fajaaleel ci biir traitement am na ci ñi nga xam ne itam affaire liggéey la dañ leen liggéey dëddale leen ak nit tàggale la ak doomu aadama yi nga xamante ne ñoo nekkoon autour de vous yaa koy amee fii ci Dakar Géejawaay arrêt Dubalès kër Serigne Lamine Bara Fall numéro téléphone bii di Dakar 77 169 45 45 wala nga jël 77 646 41 21 am na livraison à domicile gratuite foo mën a nekk fii Dakar incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam a ngi si jàmm bu baax ñu ngi ken ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen dama déggoon sa publicité si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine yi man daal daf ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bien de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de lu ma doon dund ay at mauvaise haleine yi mu sonal ma witt witt witt billahi dem naa ba mel na ku dof sax suma seeni ni sax balaa may egsi si man laa koy nuyu wallahi munuma sama yitte yépp laa daggoon wallahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd si ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallahi ngeer sax lu ne luñ na baax na rek ma baaxal sax di ko def ay bain de bouche ak lu ne waaye mauvaise haleine fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indil bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex bu mel ne daa gën yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit ñi normal fi ñu toll gëmewuma ko sax nag walla gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti metti ci man moom toog di ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla leen yàlla jàppale daal yàlla na yàlla fay gën a wéral cëri kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf. salaamaaleykum. mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa univers bio tey nag dañ leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génnee ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale waa ñun waa bi bio ku soxla sunu numéro nag dangay def 77 160 93 93 asalaamaaleykum Serigne Bara Fall man la a Diallo euh, dëkk Guinée Conakry euh, wallahi sa garab ba ma ko jëlee ba léegi maa ngi sant yàlla mauvaise haleine bi Ah, moo tax ba ma gisee si internet bi ma gis sama mbokk bu nekk Sénégal foofu ah, moo ma jox ko sa numéro ba mu ba mu ko yóbbante ba léegi ah, instant yi nii macha allah sant naa la gërëm naa la bu baax a baax baax baax parce que mënu ma nekk ci nit ñi ay maxi rek laa doon sol aussi tamit sama biir da doon métti yooyu noonu. mais sant na la daal gërëm naa la maa ngi lay ziare xam naa ni sama mbokki guine yi nekk fii nii si guine dinaa leen yabal foofu ñëw foofu incha allah rabbi kontaan naa bu baax a baax salaamaaleykum. dysfonctionnement érectile définition mooy góor gi nga xamante ni dafa am jafe-jafe maanaam mi ngi am soxna waaye dafa am jafe-jafe pour sëy ak moom normal jafe-jafe nag pour wàllu sëy nag nekk na lu yaatu ndax boo ko seetloo lu ci njëkk dafa am faiblesse sexuelle mooy première forme bi deuxième forme bi am na impuissance sexuelle. troisième forme bi am na éjaculation précoce quatrième forme bi nga xam ne itam jamono ji gis nañ ko muy ci wàllu sàkkara bi nga xamante ni dafa tuuti wala dafa ndaw wala mu dellu ginnaaw. asalaamaaleykum sëñ Lamine Bara maa ngi lay nuyu di la ziyaar yi di la jox sa wàccuwaay ah di la ñaanal yàlla rek yàgg ci yàgg ci àdduna lu yàgg yàgg di xettali jaam yi vraiment. maa dee doon déglu sa benn waxtaan ci varicocèle wax dëgg yàlla bëri na ay sëriñ yoo xamante nii daal joxewuñ ci daal maanaam lu ñu xam vraiment yaa ngi xettali jaam yi yàlla na nga yàgg ci suuf waaw yàlla na nga dajak sëñ Touba aljana ci barke Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla na yàlla dafa sutura àdduna ak lépp looy séntu ci sëñ Touba rek yàlla na nga ci jot ci barke Seyduna Muhammad ni ngay xettalee jaam yi yal na la yàlla xettalee noonu vraiment léeg-léeg nga joxe yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit fay na ci ay milliards te gisul résultat vraiment yow ñu ngi lay gërëm di la sant maa lay gërëm di sant bu baax jërëjëf. nit ñi ëpp ci ñi muy dal buñ ko seetloo jamono ji mooy jeunesse bi ñoom ñoo ko ëpp ndax bu njëkkoon paa yi nga daan gis mag ñi nga xamante ni am nañu ay soxna am ay njaboot def nañ seen fii ba pare ñoom ñoo daan dem ba ci diggu àddina di am problème mu boobu médicament industriel yi dafa bëri ay anti inflammatoire bépp garab bu am anti inflammatoire wala antidépresseur loolu nit ku koy utiliser tôt ou tard la indil impuissance sexuelle wala mu indi la éjaculation précoce wala mu indi ay dysfonctionnement ci sa wàllu sey am na garab yu ndaw yu tuuti yooyu gars yi di jaay pour wàllu sëy ndax yooyu itim ay aphrodisiaque la kon gars yi nañu moytu aphrodisiaque yi aphrodisiaque soo koy jël pour sëy au fur et à mesure da ngay dem ba sa organisme da koy reconnaître te sa organisme su ko reconnaître ba xam ko ba xàmme ko bu yàggee day dem ba dootu la jëriñ dara. salaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ Ba ñoo ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay euh, di sant suñu borom bu baax a baax garab bi mu jox essayé nañ ko. Euh, mooy buy dépanne dépannage bi waaw vraiment comme turam nu mu ko waxee dépanne na bu baax a baax macha allah ñooy sant bu baax gis nañ ci suñu bopp. waaw ah, yàlla na continue te wér topp si jërëjëf waaye yow it yàlla yokk tawféex jeuf merci beaucoup. mo degon nit ay seigne bar ñi wax ci mom ay jaloore. Euh, ñoo xam ne dañ fa demone am ay resultat bon pratiquement mosuma see hôpital amna soxna no du ma woon intéressé mais pratiquement damay sentir ni bu may sey dal pratiquement ak bu ñëk bu ak légui vraiment outé na outé na amna différence ci la ñëw dégg ñuy wax seigne bar ma ñëw seet si bon warna mat juste 2 euh, à 3 mois maa ngi sentir am vraiment amélioration wax dëgg yàlla par rapport ak bu njëkk ba. nit ku impuissant mën na éjaculer mais dafa ñàkk kattan du durer ñaareel ba day gaaw a daanu ñetteel ba itim day am faiblesse du dëgër fay am faiblesse amul endurance bi kon nag mu ngi noonu daal bëriwul njëriñ bu baax ni ñu koy prévenir mooy lenn lekk légume bu bari ak lekk fruit bu bari loolu moom bokk na ci premier conseil bi nga xamante ni ñoo ngi leen koy may moytu itim hamburger yeeg moytu lépp lu niin ak lépp lu gras beneen prévention bi nga xamante ni ñoo ko ci wax mooy éviter de faire masturbation masturbation mom, bep nit bi nga xamante ni koy def jàppal ni tôt ou tard dina indi dysfonctionnement érectile ci sa walu adina traitement bi nak am nañ ci ben gamme de produits bu ñu wax rapido extra moy solution bi xamanteni c'est le meilleur beaucoup plus adéquat ak ñetti pomade la yi nga xamanteni ni kenn du ko te kenn duko ko naan day faj lepp luy dysfonctionnement érectile ci faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce lepp luy jafé jafé ci walu doole wàllu ngóora wàllu kattan ak wàllu sëy képp ku ko am rek dina faju ba mu wér. bu ñu defee nit consultation ba pare après diagnostic ci la ñuy mën a xam ndax kii pommade bi lañ koy jox wala kii poudre bi la war a jël wala selon ni kii itim communication bi mu dégg lan moo ko intéressé ak lan moo ko arrangé li mu ci bëgg rek ñu defal ko incha allah en tout cas saafara am na fi solution am na fi yàlla mooy wéral mais yàlla nañu yàlla boole. képp ku la ci loolu ba mu wér incha numéro ñu 77 169 45 45 77 169 45 45 77 160 93 93 77 160 93 93 Guédiawaye arrêt Doubalès Kër Serigne Lamine Bara Fall. Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, je veux juste faire ce petit témoignage euh, pour, pour vous parler du produit euh, de Serine Lamine Barafal, le produit Rapido Extra. Alors euh, moi, moi-même j'ai connu le produit par le biais d'un ami qui m'a montré le Serine. J'ai acheté le produit, euh, le Serine même m'a montré comment utiliser ça. J'ai constaté qu'il y a beaucoup amélioration. Déjà au niveau de la taille, parce que avant la taille de mon pénis, c'était pas du tout, du tout ça. Ça me convenait pas trop. Donc je cherchais des moyens pour, pouvoir agrandir ça. Mais grâce à ce produit, le, euh, le produit Rapido Extra de Serine, bah, la mine j'ai vu une nette amélioration. Et pour vous dire, euh, depuis que j'utilise euh, le produit, je suis vraiment satisfait. Ma femme aussi est satisfaite parce que depuis que j'utilise le produit, je dure longtemps. Je dure longtemps. Donc euh, moi je recommande vivement le produit, ce produit de Céline Lamy Barafal, ce produit euh, qu'on appelle Rapido Extra, moi je le recommande à tout le monde. man nga fi seetaloon jamono ye ca ginnaw dama ma affaireu ngalaw moo ma duggon ak ay liggéey yu bonuñ ma defoon ak yoyu ak affaireu saytane rab nekkon luma yakal ak yoyu ci seet gi lol nga ma waxon ba jeexaloon nga ma ay garab ba dila di xamal ne garab bi ni ma ko waxee woon jëfandikoo naa ko wax dëgg gis na ci njëriñ parce que ma ni munu mako won woon tane naa bu wéré wéré wéré wéré ndax dama daan dem bureau sax duma ma liggéey damay lal ba sañ tëdd ndax sama yaram bi daan diis sama dënn bi diis ba wax dëgg tane naa bu baax a baax a baax sant yàlla di la sant yow mii nga xam ne yaa ma si jàppale jërëjëf jërëjëf sëñ Bara jërëjëf yàlla na la yàlla fay jërëjëf. lan mooy différence entre rab jinne ak ngelaw seytaane ak nitu guddi. rab jinne ak seytaane benn la jinne moo ñëw ci alxuraan rab wolof moo koy wax seytaane euh, arab mooy wax seytaane ku wax rab amul wala ku wax jinne amul rek xëy na da nga jàngul alxuraan ndax yàlla nee nit ak jinne la boole bind sàkk وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون امنا سي خيتو جن بيغا خامتيني اتيم ناك بو بوغي دوجو سي نيت داي جيل جيم نيت بوبو جن بيغا خامتيني ناك موي جن شيطان موي جن ناك بي سونال نيت ني نيكاي واخ فارو راب جن بغول كو ام ديني خالي جيغيني ام 17 عام 18 عام نيك سي بونتو ادنا دي بوغا دوجو سي ساي ان جينيرال جن ني ньоญو دنج نين دوجو ndax ñom it ñokay def ndax jinné buñu gisé jigen bi xamanténi tay son nga greffage poudre nga maquillage nga may këpp nga yaa ngi sol lu yiwadi say say cër ngi feeñ sa dënn ngi feeñ bu ñu xoolee sa suuf dara tëju ko yaa ngi sol baa sol bodi kooku jinne bu la séenee ngay dem daf lay topp ndax jinne la yàlla bind ci soppe nit ki boo commencé sentir ni yow kat sa alal yaa ngi commencé yàq am ay yàq-yàqu alal xaalis boo am rek day seey loo am day yàqu di am ay jafe-jafe ak nit ñi di commencé gént ay gént yu lëndëm ngay commencé di tëju di wéet doo bëgg wax ak kenn bu ñu manifester noonu rek jàppal ni seytaane commencé na laal loolu nit ki da war a jot ci sa bopp. surtout ci jigéen ñu moom daf leen di def ay avortement daf leen di def ay fausse couche jigéen ñu bëri daf leen di tere ëmb ñenn jigéen ñi dañuy am crise d'épilepsie ba jigéen ñooñu pour ñu am jëkkër sax day jafe rawatina nag pour ñu am doom mais jinne moom ci gént la nit mën a sëy moom mais mënul sëy ak nit nii directement boo ko géntee nag am na lu muy bàyyi ci yow bu duggee ci biiru jigéen da koy def ay feebar loolu nag mën na la fatt ba tëj say trompe nga sëy sa jëkkër téeméeri at ak juróom fukk doo mën a am doom. man léegi-léegi yàggul ci quatre heures bi jaar naa ko. Mhm. doon ñëw seet seet sëriñ bi amoon benn malade bu bu ma fa doon indi. Mhm. mais d'après lu ma lu ma defal yëpp gis naa ko fu mu nekk nii sama malade bi alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi tane fu mu nekk nii am na jàmm. waaw malade bi dafa amoon nag lu ko duggoon dafa amoon li ko duggoon après ma ñëwee si sëriñ bi loolu la loolu la ma expliqué mais fu yàlla def na ci def na ci jàmm daal gis naa résultat yi daal fu mu nekk nii ñëw toog sëriñ bi daal danaa sëriñ si lu muy def li ñëpp gis nañ ko man day en tout cas bon yàgg naa ko dégg mais il m'a vraiment impressionné sur quelques une heure de temps hmm. je ne sais pas deux heures deux heures de temps yu moo ko jot a gis yi daal sëriñ euh, Lamine Bara maa ngi lay nuyu euh, di lay ziare eh, di la jox sa wàccuwaay ñu ngi lay santit bu baax a baax a baax wax dëgg fi yàlla affaire yi ñu yi nga ñu joxoon ñu ngi koy utiliser matagul mais ñu ngi commencé di ci gis daal bu baax a baax a baax a baax ndax suñu yaram bi ñu mu doon diisee ak eh, gént ñu daan def yooyu yëpp yu si bëri wàññeeku na wax dëgg fi yàlla te garab yi matagul sax eh, donc kon dañ lay sant bu baax a baax di la wax jërëjëf góor moom da koy da koy da koy defloo muy mballu muy faye boppam waaye li leen koy defloo duñ ko xam am na góor ñu bari ñoo ngi dox di dem mais à tout moment seen awra day metti te loolu jinne moo koy def seytaane moo koy def day téye sa awra am na ci góor yi nga xam te daf leen di xir ci mooy tànk demuñu wuti jigéen buy jaay boppam ñu nelaw te bu ñu demee di sëy idée ko njàkk ni sax nit la ñuy sëyal te fekk jinne lay doon jinne dafa intelligent bala ngay egg fa nga jëm moom jiitu na la fa bala mu leen di bàyyi rek ñu màggat ba ni kooku dootul am njëriñ mu yàq àddinaam du am jëkkër ñenn ñu du ñu am jabar ñenn ñu du ñu sëy bu boobaa yow nit ki war nga xool lan moo bon am na lu bon lu la topp. jinne différence am ak ak nitu guddi mooy jinne daf lay dugg ànd ak yow pour conduire la en pour def la lu bon soo bëggee jaamu yàlla mu yàqu ko sooy julli mu ñëw taxaw nitu guddi nag mooy dëmm dëmm boobu nag moom daf lay tiital dafa am lu muy jël ci yow dëmm moom baaxul waaye nag lu am la ndax ñun ñi di faj dañuy faral di gis ñen ñi nit guddi daf leen di attaquer bo dajante jinne julit nak limuy jëk def moy képp ku la liggéey daf koy dindi képp ku la xex daf lay daf lay daf lay daf la koy daf la koy taggal jinné amna ci dëkk bi ñi nga xamanteni amnañ alal table bi ba mu fess mën nañ ko def mallette d'argent mu jox la alal judul jeex maanaam du la lor du la yakal du yak sa digganteeg sa borom du la tegi feebar te mën na la jox alal te mën na la jox xam-xam waaye jinne li gën a spécial ci ñoom ci ni leen yàlla bindee jinne moom day fàtte jinne lépp lu mu def tey à la minute ci mémoire am dañ koy formate day fàtte bu defee lu baax fàtte na ko bu defee lu bon fàtte na yàlla moo leen bindee noonu mission bi leen tax ñëw ci kaw suuf loolu moom duñ ko fàtte moom dañ koy nekk rek di ci def lépp luy am suba it xam nañ ñun ay sëriñ nañu di faj di ñaan ba képp ki ñu xamante ni suñu borom mi ñu boole ak moom lépp lu ñu mën ci ak xam ak alxuraan ak xasaaytu sëñ rek danañ la ci ñaanal mayle ci lemay pour yàlla dimbale la lolu sore la te képp ku mu dal buñ la ci joxé ñaan yoy incha allahu rabbi lolu dan la dan la sore doto ko gissati mukk sa àddina dina dañ définitivement may ay ciuray shaytan yoy utiliser xam te ni foo ko taal seytaane dana fa daw ndax shaytan yu dem dafa am yi nga xamante dañ koy moytu ñom ñun xam nañu ñom lan lañuy moytu li ci ëpp doole nak moy alcorane fu alcorane karim di di yëkkatiku même boy nalaw nga wañi ko tank alcorane dafa nek yenn jinn yu bari duñ fa mëna dugg képp ku ñu soxla contactel ci contact yi di nga ñu mën a jot daañu mën a jàppale ci ay ñaan suñu kéemtalaay katan bismillah jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Baara Fa Njaga yaam li nga wax yëpp franchement dëgg la nit seetal na ma ba pare ma fay ko sama xaal mu xoolal ma ba pare du may seetlu sax lu bare ma ne ko may naa la xaalis bi parce que li nga ma wax yëpp du dëgg donc yow li nga ma wax. yëpp dafa dëggu li ma wax yëpp yëpp dafa nekk ci man ku nee naa la ku jafe seetal laa wante kontaan naa torop te dara xewagul ndax gis nga nit wax bu waxee la muy wax boo ko analyser di nga xam dëgg la wala du dëgg di nga xam tamit kii fu mu la teg gis naa ne itam ci sa biir wax li nga ma seetal danga ma seetal seetu yéene wax ma waxu yéene aussi te doomu aadama tam yàlla moo koy orienté xëy na man ni ma xëree ci diina lislaam ni ma xëree ci jox sama bopp suñu boroom fonk xaadimu rasul di jàng xasida yi di jàng alxuraan defuma dara lu dul topp suñu boroom rekk itam xëy na loolu la ma yàlla dimbalee sax ba yëf yi mettiwul na mu waroon mettee yàlla moo ma orienté ci yow yàlla xam na ni billaahi wallaahi azim du may faral di dem si sëriñ yàlla may la yow loo xam ne mayuma ko nga xam loo xam ne xamuma ko ma am yaakaar bu ma la jox ci kattanu suñu borom barki sëñ Tuubaa Mbàkke Xaadimu Rasuul dénk naa la sama bopp te dinaa la dénk sama njaboot dafa am yoo xam ne du mbiru nit mbiru suñu borom la jërëjëf Fall jërëjëf yal na la yàlla suturaal jërëjëf Fall jërëjëf Fall jërëjëfati